ndax président République du moroomu kuy taxaw ci biir réew mi da bëgg Sénégal ñu bëgg ko jàppale ko ci ca jàppale bi ñu ko ci jàppale nag kafuñu ci réew ñu suñ bakkan lañu ci teg gàññe la ñuy def dóor defar Sénégal xale yi liggéey trottoir yi baax ñu xam ne Sénégal ga woon ak gu bees gi bokkul politique bu bees lañ bëgg Sénégal gu bees Ndakaaru gu bees ca Diouf saar moo am xol bi am yéene ji am yitte ji man koo def kooku nag duñ ko changé képp kuy taxaw ci biir Sénégal fii li ñuy wax mooy Benno Bokk Yaakaar ca kaw kanam gagné élection président de la république bëgg xalé yi liguey école yi baisse mbedd yi baisse yi insécurité jóge fi police baisse. bees yi taxaw ñu xamné ni dëkk bi won ak bi dañu jëm vers l'émergence et quand on va vers l'émergence personne ne nous arrêtera on veut l'intérêt général on luttera pour l'intérêt général et on ne cessera de donner toutes nos forces pour que le président de la République qui est en train de porter le Sénégal vers 2035 kenn du ko arrêter. loolu la ñu gëm ñun ñun la jeunesse ñun loolu la ñu gëm bu ñu doon def politique ñu si dara sax na suñu Sénégal dem ca kaw dem ca kanam ku fi nekk di saaga ak a sànni xeer yaakaar ni nii mën nga dagg tànku président bala ngaa jot ci moom dinga dal ci suñu kaw ca dal ci suñu kaw du yomb ca boo dalee suñu kaw ñun ñoo lay fiir bala ngaa àgg ci président ndax président si le président de la République du Sénégal ca Zator mbay mooy gagné Mermoz Sacré-Cœur Diouf Sarr mooy gagné Ndakaaru ñu àndandoo liggéeyandoo benn bokk yaakaar ca kaw ca kanam